السلام عليكم ndax sëriñ Babacar moo nu ci yoor yoor nu di ko ndokkeel ba Cheikh Tijani sama turandoo gane àdduna mu di ko ndokkeel ca bés ba wante nu fekk keroog bégul bégul dara nu ànd mag sëriñ Mansour sëriñ Muniru sëriñ Saliou mu nuyoo nuyoo bu sedd guy ñu toog tuuti mu ni ana nu xew mu ni pat mu ni yéene ngi gomu gomu ñu topp leen jañ leen comme ay si ngeen bëgg delloo ci aada bu desul dara ci biir kër gi te kër gi coow tax fa ba noppi ci xiir waaw leen ci xiir wax waxin bu ku nekk xame na mu ni sama bëgg-bëgg nekkul ci ngeen sol gom sama bëgg-bëgg nekkul ci ñu tagg leen sama nekkul ci ngeen tiitur sama bëgg-bëgg nekkul ci ngeen jaay barke sama bëgg-bëgg mooy ngeen xam kuy seen maam te ngeen am da gitu la mu nit doom këru diine bu diine dugg te ndaw wante dafa wuti doole boo amee doole dellu ci jéem a dàq diine bu ma fekkul ñu taxaw rek bokk yàqu wëllëre yàqu xaritoo yàqu muy bés bu nga xam ni duñu daje mukk te fàttali wunu ni jamono mel nag mënuñu ci dara nu nu ci man xanaa rek la mu waxoon mag ñi dajale na leen bés fii ni leen bu dul woon yéen àgg naa ko ma jëm yéen a ma gàllankoor te defe ni yéen ma jox bal waaw yéen ma gàllankoor te defe ni yéen ma jox barke bu ma leen gisatul woon rek àgg ko ma jëm waaw mu ndax kat boo xasee jàpp kenn ku la mën a lépp ku la tekk seeti rek bu la nee ayca dañu ko ayca waaye daf lay gën a tardel nag waaw mu mel nag kon bis boobu lanoo fàttali tey rek mu di bis bu solo ci nun ah nun dund nu wax dëgg yàlla ak Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala anhu ci kaw suuf waaye dund na nag moom nag ci pas-pas mu mel ni itam bu ñu tuddee diine pexe jeex na ndax juróom benni junni at